defoon rek. Mm. Euh, euh, euh, sàcc moo a gënal nekk nekk sàcc moom a gënal nekk fenkat mm-hmm. nekk di liggéey ci télé dof mm. moo gën di liggéey yi te télé markatu taat mm, déet du dëgg di liggéey ci télé dof mm-hmm. télé yi moo gën ci te liggéey ci télé ñi nga xam ne dañuy mart ay taat ah, pour télé dof yi seen xam nga xam nga xam nga xam nga xam soxna si billaahi wallaahi taalaahi ah, ci barke incha allah muhammad ñun neexaluñu kenn mm-hmm. ñun waxuñu kenn par force mm-hmm. ñun daw topp ci gannaaw benn directeur général wala benn ministre wala benn keneen mm-hmm. pour am li ñu ñu bëgg ci gannaaw nit askanu Sénégal moo ñu tax a toog fii mu neex askanu Sénégal moo ñu tax a toog mu naqari ñu askanu Sénégal moo ñu tax a toog su nekkee askanu Sénégal tele askan bi la bëgg doon dañuy féete ci fi askan bi féete askan bi nag lépp loo xamante ni naqar la mhm. mu koy dund dañ koy wax mhm. lépp loo xamante ni bànneex la mu koy dund dañ koy wax lépp loo xamante ni dañu dafa war a jëm ci askan bi dañ koy wax mhm. mais nag dañoo ut ñi nga xam ni dañoo ils ont vendu leur âme dañoo uteeg ñoom dañoo uteeg ñi nga xam ni ay action ay partenariat moo tax ñu dëpp ñu dëpp ñu leen di nañ ma baal. ñu leen di def yenn yi. yàlla baax na xam nga àdduna loolu la rek. Mm-hmm. li ma xam mooy. Mm-hmm. Euh, ku ñu tooñ baal lañ la. Mm-hmm. ku ñu taxe lu ne bàyyi nañ la. mais fi ñu toll ci àgg àdduna dof du fa àgg. fi ñu toll ci àdduna dof du fa àgg. télé bi mujjee juddu. Sénégal gi yëpp di ko seetaan. Sénégal gi yëpp di mu neex leen nag. Mm-hmm. amna ñu mu neex li ñuy wax amna ñu mu neex. Mm-hmm. li muy wax amna ñu mu nakari mais téré ñu téré terewul ñu ngi tok diko déglu. c'est normal ñu bëggal ñëpp mënuñu ñu ñu neex ñëpp. Mm-hmm. mais téré terewul lepp lu ñuy def ci dëgg lañ koy tek xangul tax. bañu tambalé ba tay li ñu comme li ñu daan wax télé Séné li ñu daan wax askanu Sénégal yëpp commencé nañ ci gis seen i wallahi ñu ngi ciy teg seen i waxu ñu ndax suñu jamm bakkan bi parce que gëm nañ ni. mënuñu saxoo di di di per sallallahu ala muhammad xam ni suba dañuy dugg ci biir bàmmeel di wax loo xamante ne gëmuñu ko kon nag man de ban su ma sañoon mm-hmm. nekkub dof mm-hmm. moo ma gënal di cagatu mm-hmm. nekkub dof moo ma gënal di di di di di di di jaay sama ngor nekkub dof moo ma gënal ne leen yenn melokaan yi am na yenn melokaan yoo xamante ne bëgguma sama doom mel ko mm-hmm. am na yenn melokaan yi bëggu sama ki ma xam mel ko mm-hmm. am na yenn mel ko wax ne yoo xamante ne ñaanuma yàlla mayen ko ci àdduna bëgguma ko te duma la ci duma la ci duma la la ci lancé yow nga ciy nekk mm-hmm. képp koo xamante ne xam naa la duma bëgg nga nekk ci maane ñun ñooy télé dof yi loolu lañ ñu waxal mais fii la fii la mburu mi di xayam xayamee ku bëgg information juste et fii ngay toog bu wóor te leer dëgg rek fii ngay déglu mm-hmm. xalamal ñu ma demba xalamal ñu lul ma sàmba mm-hmm. dëgg la ñu taxawee xulul xaq walal kaanal murad mm-hmm. nekkuñu ci leneen dëgg ku bëgg ñu xalamal la nag da ngay dem ci ñi nga xam ne dañ leen di juutal pour def leen neneen ay ku bëgg ñu xalamal la té ba da ngay xam ni nga ni ngay dem ci ñi nga xamni ne dañoo dañ dañoo jaay seen ngor ñun ñu ma demba ñu ma samba ku def lu baax ñu dé def ko lu baax ku def lu bon ñu né def nga lu ah, bon. arti di dé euh ah. maana. hmm ngi ñaaw dé dina gëna a ñaaw. baax parce que nak wa def ci glace. xam nga Sénégal dañ fair play rek. Sénégal Sénégal. dof yi rek a fi tekki. wa nañ leen bal amna ku fi dof dof lu ba nek premier ministre. ah. ah. waaw Sonko de moo fi nekk premier ministre. waaw dafa dof doflu ba nekk premier ministre. nu mu dof doflu waaw dafa dof doflu. Ah. mbaa lu mu lu mu lu muy def théâtre. def grand théâtre ba nekk premier ministre. Ah. def na lu ba nekk premier ministre. Hmm. dof moo gën jaay jaay sa ngor jaay sa dënn jaay sa lépp. pour hmm. nekk pour toll fi nga toll. Hmm. yàlla nañ ci yàlla musal. amiin doxalal.